bëggee ñëpp teg booy di ñaan yéen ñi nekk ci tiktok bi yéen ñi nekk tiktok bi pour buzz di wax ngir jëmi Serigne tubaa yàbb leen doomu jàmbur yi ngeen ñaanal ko quoi yéen ñi nekk ñi nga xamante ñi naan ay parce que ñoo bokkoon appartement bu ñu ñi naan ci suuf laa nekk ak ñi naan ci koñ bi laa nekk ak ñi naan ay samedi dégg nañu ay yuuxoog dimanche dégg naa yuuxoog ñaareel lañu yuuxu ñooñu waxuñu dëgg buzz lañ bëgg buzz loolu du dëgg waaw lan la mën a yuuxoo samedi te samedi waa li fanaan sama gaale ñu naan dimanche c'est dimanche lundi waa la ñuy atelier léegi nit na la mën a deewee dimanche lundi mu xëy Colobane loolu loolu dafa yenu maanaam nañ waxante dëgg ngeen bàyyi seen xel bi ngeen fooyee te affaire buzz yi ngeen ngeen jël ngeen teg ko ci suuf kii gaañu ne signalé leen ay compte am ñu boloxee ko man maay Pape Cheikh gars yi xam nañ ma bu baax Wally sama gaañ la sama doomu ndey la ñooy ànd barki alxuraanul kariim Wally samedi sama gàlle la fanaan sama secteur Kër Massar la ñëw foofu noonu ba bu mu yeewu 9h maa bi noonu mu jug sel mu jël ay ay bagage am seey dem yoonam dem Pikine yaa ngi dégg lenn tamit lenn ñu dajee atelier Colobane lenn la doon taw moom sax dafa xaw a naajee ñëw mu ñëw Colobane ñu nekk foofu noonu te xoolal te bu ñu ma kiiwee ma génne leen vidéo yi nga xamante ne lenn lañ ko def te su ma nee waale ñëw na lenn ah suñu waa atelier ñoom dinañ xam ni waale ñëw na lenn te ñoom duñ ñoom duñu weddi loolu wala ñëw na lenn léegi la moo tax ngeen nekk naan ay samedi la dee dimanche la dee waaye léegi loolu lan mën nekkee ku mën a dee samedi dee ñu naan dimanche la dee ñu naan samedi la dee ba pare mu xëy si lenn loolu dafa mën nekk wala kon Aziz lañ njëkk a rey ba nañu waxante dëgg ba nañu waxante dëgg lii yéenul maanaa li ngeen wax yéenul maanaa waale samedi ñoo bokk lal bu ñu fanaan lenn ñoo bokk atelier bu doon liggéey te tamit ñoo bokk ku ñu doon ñawal benn patron bu doon ñawal man ak moom te ñoo wàccandoo ay dégg ñoo wàccandoo te xoolal bi ñuy wàcc sax dafa am lu ma doon tegal parce que ñu ñaar ñoo doon programme ñoo doon programme noonu pour màggali barki alxuraanu kariim mu ne moom Aziz jox na ko 10 000 pour paasu màggal mu ne ma yow léegi damay fexe man ma dem ci Aziz ma ne ko comme jox nga waale 10 000